bëtam bi dana ko sàmm ba du xool lu xaram noppam yi dana ko sàmm ba du déglu lu xaram a dégg tànkam bi dana ko téye du dem fu ko yàlla tere naka noonu mboolum cëram yëpp mu ne kooku mooy jàmbaar te mu wattandiku jaamaarloo ci yu bari di muñ di bale mu misaal benn shaa'ir boo xam ne day misaal makarim axlaq maanaam tedd ngay jikko mu ne wala qad amurru ala allaini yasubbuni wa aisku summa aqulu la yaanini man de danaa romb sax aji soxor joo xam ne mi ngi may ŋàññi di ma saaga waaye bu ko defee man danaa segu rek bu ñu waxee sax ma ne waxuma de keneen lay wax من ولا تقل لأحد كذبت أو قلت غير الحق أو أخطأت tegin bokku ca nga naan nit wax ci yow la mu wax du dëgg nga ne ko fen nga wala nga ne ko juum nga déedéet na nga ànd ak sa sag rek te teey da nga dem sax ba xam ne yow mi wahai li wax àndu na ca waaye dem ci wedd ndax nee ñu waaye wedd yabel la kon nit ki war na am teggin teggin yoo xam ne dana tax bu nit di wax ak moom ñu déglu bu baax la mu koy wax déggin wa gën a rafet teg ko ci anam ga gën a rafet anam ga gën a jub wattu boppam ci lépp bu fekkee waxtaan itam rawatina waxtaan woo xam ne dañ koy waxtaane yàlla ak yenant bi wala ñu dafa jàng alquran mu wane tegginam moo di dalal ay cëram déglu la wax tax yéene def xolam muy ndab loo xam ne day taatan xikkam du fa jógee jëriñoo ko ndax Muhyiddin Arabi nee na ci këskoom bi ko suñu may xool na waa safara xuloo boobu suñu borom di nettali ci alquran ne waa safara dañ koy xuloo qaalu wa hum fiha yaxtasimuuna xuloo boobu la ko waral du dara lu dul sababu mbugal metti ba téyatuñ ko di jëpp kuy wax nee nañ loolu nag li ko li ci gën a wóor ci li koy waral moo di fu ñuy waxtaane yàlla nga bañ a déglu wala ñuy jàng alxuraan nga bañ a déglu wala ñuy wax xadis yonente bi sallallahu alayhi wasallam nga bañ koo déglu loolu day boole nit ca karug mbugal googee mar ditaali ca safara ba boroom di jëpp ku di wax adab nag maanaam muy teggin bala ñuy dem ci melaw yi saaga te di ñu gën a mag ñu dañ koy amee ci tërbiya daan waxtaane lan mooy tërbiya daan waxtaane it lan mooy matu teggin ak ki ko meloo na mu mel war a mel ak fu mu koy jële suuf si suñu borom azza wa jalla ko bind indi si nit ñi fi mu fi indi di aadama bi mu ko fi indi malaayika yi dañoo taxaw gis na nit day lekk di naan di génne sobe ci kaw suuf dafa am ay njëriñam am ay loram te nekkam ak moroomam ci kaw suuf dana waral léeg-léeg seeni njëriñ féeroo kenn ku ci nekk di sàmm sa njëriñ mu waral ak jubóo di ko ci ñoom loolu dana leen xëcc ba ñu àgg ci léeg-léeg rayante wala gaañante ñu ne ko nag yow suñu borom doomu aadama indi ci kaw suuf si te sell ñu di fi moy di fi indi sobe di fi xuloo ko xeex di fi rayante te nga nu fi indi ñun ñi nga xam ne duñu lekk duñu naan xam ñu sobe amuñu intere benn bu ñuy défendre ba di xuloo dunu la mooy mukk noo fi waroon a gën a yey noo fi gën a yey suñu borom xamal leen ne leen seen xam-xam dafa gàtt moo tax ngeen foog loolu xamuñ woon ne suuf bu ñu koy bind doomu aadama taxoon doomu aadama moo mën a feeñale xikkam bi yàlla def ci kaw suuf mooy ki war a dëkk ci kaw suuf di ñaari cosaan yu ñu boole muy roo ak yaram doomu aadama am ci warugar woo xam ne mooy dimbali roof gi ko suuxat ca la mu laaj tey wattu yaram bi nga xam ne suuf la ban la bañ a jël wàllu roox bañ koo féete kaw bañ koo naq bañ koo muur ba texe am ëllëg roo buy dellu ca boromam sell ba mel na meloon xam ne benn gàkk néewu ca du aajowoo fóot pour muy dem àjjana mën a bànneex ci leer yàlla mën a xool suñu borom azza muy muy lépp ngir nit war a am jooju daraja suñu borom daf ko xamal malaayika yi xamal leen ne ki nekk ci kaw suuf day mën a jëfandikoo njëriñ yi ci kaw suuf yépp waaye malaayika mi amul soxla ci njëriñ yi ci kaw suuf day tax xikam yi ci yàlla defoon ci kaw biir ci biir suuf duñ ko xam loolu moo tax ba mu leen laajee mboolem xeeti jëfandukaay yi nekk ci kaw suuf ne leen lii lu mu tudd ak lu muy jëriñ xamuñu ca dara ndax bu seen mbir mu ne aadama xamal leen loolu aadama xamal leen lépp lu doon aadama di jëfandikoo ci kaw suuf muy jëfandikaay wan leen la muy jëriñ xam leen nañ koy xamal leen nañ koy jëfandikoo ba noppi bu ca jógee xamal leen nan la di bëree ak yaram ndam la ñibbi ca pays ba mu dëkkoon démb muy pays xéewalam di pays texeel na doomu aadama war a xame yàlla muy xam yàlla gi gën a mat nga xam ne malaayika àggu ca aadama far nekk di seenu sëriñ yàlla sampal ko ak siisam ci kaw asamaan mu jàngal ma malaayika yi ñi di ay taalibeem di ay turgaam suñu boroom wan leen ne da ngeen a xamul man maa xam ba ma xamee aadama jëmale ko ci kaw suuf sii ñu nekk ci diggante ba li tax ma def yëpp dara ngeen ci xamul léegi wan ngeen wan naa leen ko ñu daal di dellu suñu boroom balu sàbbaal ko xam gën a yeesal màggam bi ci seen xol wan ko ne nu xamuñu dara lu dul loo xamal yow rek yaa xam ba loolu amee te xam ne kat aadama bi ñu ko tëree te jubagul suñu borom dafa waxoon malaayika yi nga xam ne ahli suuf lañu malaayika yi ci kaw suuf ba ba ñuy tuddee al aalona min malaayika yi bokkuñu ci woon dañu leen a digal ñu sujjóot ci aadama ndax secret yàlla yi nekk ci moom yépp malaayika yi sujjóot mu des iblis iblis moomu tàmbalee ci noonoo bi noonoo aadama ba sat ko ca àjjana fexe ba génne ko ca daan ko waxtaane loolu lépp buñ ko seetee ñaari xaaj rek lay doon mooy nangu ak bañ mooy bon ak baax mooy jub ak dëng mooy am teggin ak ñàkk teggin kon teggin fa mu fàqee sori na doomu adama nag bi mu ñëwee ci kaw suuf te war a jaar foofu ñu waxoon fépp ne adama xamal na ko malaayika yi mu am cër yi nga xam ne moom lañ ko dénk mu di ay njënkaane yoo xam ne ñii ëllëg benn bu ci nekk dafa war a wax na mu ko sànne woon ak fa mu jaar ak moom lu ca tooñ lu mu ca tooñul ndax xam ngeen ne ñu na ko waxee woon ne euh, nit ki texeem mooy lépp loo xam ne lii lu ko sene ak sant ak lu ko xaqi ak sant mu jëfe ja nam ware ba war a mucc ëllëg bu ko defee du jaar fu ñu koy xisaaga wala fu ñu koy fóote wala fu ñu koy defee dara yonente bi sallallahu taala wa sallam ne kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kenn ku ne ci la boo xam ne ëllëg ñu ko laaj lam sàmmoon du caa jéeni nag mbooloo mi la toppoon rek lañ lay laaj du caa jéeni sa soxna ak sa doom lañ lay laaj ni ngay jëfandikoo ñoom waaye cër yi nga xam ne dénk na la ko yépp mu di juróom-ñaari cër benn bu ci nekk da nga wax na nga te ñoom te cër yooyu dañ koy wax loo ëllëg ñoom benn cër bu ci nekk lépp loo defoon ci moom ci lu dul noonu wala lu noonu dana ko wax dana ko xam ne ci kanam yàlla kon nit ki ni war a jëfandikoo yoon mu war a aw mooy yàlla kon lépp loo xam ne war na koo def ngir mën a xam yàlla ba ragal ko ba xam na muy jëfanteeg moom mooy farataam ji njëkk a njëkk xam yàlla kon doomu aadama bi te xam yàlla bérébam ci nit du du loxo du tànk du nopp du bakkan xol rek la